moom parce que yaayam saykat la euh, te xale bu jigéen moom dañ ne jàngaanduwul yaay ja mooy mooy sëriñam te yaayam saykat la xam nañ ne lépp lu war a nekk ci moom pour mu war a nekk saykat lépp lu war a nekk ci moom pour mu nekk koo xamante ni li ñuy xaar ci moom ci sëy dinañ ko gis xam nañ yaayam def na ko ci moom kon nag li olof naan doomi ñeeñ kenn du ko ñaanal mu rëy dañ koy ñaanal gudd fan rek yàlla na ko yàlla defal ceeb defal ko barke ci sëy borom xam nañ loolu yombul ndax yow tu marié yaa ngi mais nit daal dafay am personnalité rek digne bañu déglu kenn déglu soo borom kër c'est c'est que boo dégluwul nit ñi rek fi nga jëm mun nga fa àgg parce que moom nit ñi souvent li naan ku ñu xam fi nga jëm doo yàgg doo àgg donc mooy nga déglu sa jëkkër rek mu nekk sa xarit nekk sa complice ñeneen ñi bokkuñu su ko defee nga àgg fi nga jëm quoi. waaw loolu ñaari seen série bi yëngal àdduna bi ko mooy eh, xew-xew. xew-xew xew-xew yaakaar naa booy nee moo xew de. <laughs> après xew bi luy xew gars yi ne xew. après xew xew xew eh? mooy xew. <laughs> kon xew-xew jeexagul. non eh. ba ci kanam ba ci kanam. d' accord incha allah sama gars yi. yéen moom yéen moom valeur yooyu am nañu quoi yéen ñu mag yi. jii muy wax ak yéen da ciy fekk séeréer waaye ni mu mel ak Alioune moo tax mu batale lépp daal di ñëw mën a teew. mais bu doon laaj fukki nit yi nga xamante ne ñoom la Alioune gën a duggoon teel moom di ko génn. nee na di dalal honorable député honorable député xaritu Alioune yi nee nañu na sa xel dal. ne li nga wax ni doo gàkk Aline du gàkk nee na Aline ku tey la ku dal la ku am yar nee na Aline dañ ko naan yow nit ki naan da ngaa yaru waaye moom Aline moo ko gën yaru nee na Aline daf ko impressionné daf jaaxal mais dafa mel ni buñ doon wax tournoi coupe du monde ci àllu aar nee na Alioune mooy représenté Afrique bi yëpp. mais xëy na Sénégal nag da ngay dund te dañoo xam sa valeur nee na doon dañoo xam sa valeur. nee am na yar am na diine am na taalibe am na yaatu na na mën na mbokkam mën na xaritam bëgg na famille nee kon tabarkàlla na seen xel dal ngeen dolli yaakaar ci moom jërë ngeen jëf président Bachir Diawara naa ko ne li mu ko def dafa gudd. day gudd day gudd ñu ñëw ñaar ba. waaw jërëjëf jërëjëf. waaw jërëjëf. jaram mbay jigéen loola min mbay galas mooy seen baay waaye mami mooy seen yaay waru xari jaaga xari ne ma xari ne mu di ci jaam ay sama doom ji sama doom ji sama doom ji ne woon naxe mbaay wuru xari jaaga xari ne mbo xari ne mu di ci jaam Omar maam sekk bu sa maam dogo faalen ma wa jore mbay kumba samba yay jaloore jaara doo dee waay jaara waaw waaw jaara mbay kala fay sa baay waaye njaxat mbay mooy sa baay jaara mbay jaara jaara jaara leen mujj sëñ bi wala wuy ma da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon kaay da ngeen ñuy may yoon xoolal yéen ñëpp da ngeen toppatoo da ngeen ñuy may yoon rek wuy ma da ngeen ñuy may yoon jala wala wuy ma ñëwal bu bu yi nga may bay eh ñu ñul da ngay essayé. exactement ci say borom ngay jëm nuyu leen ñëwal ba pare toog sa ñëwal. ñëwal naa ñëwal naa waaw xarit mani حسبنا مجيد باي اي هم دابتي جحبل سباي اي هم دابتي مامي هاي مامي كمرو قلني ووي سياي كرمي